ahousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim uh, asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi waa daayira Muxaddamatul Xidma di ñaanal sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool tànd ak wér ñun di ko ñaanal sëriñ am jum sëñ Moodu Mbenda yàlla yàggal ko fi ak jullit yëpp ak taalibe yëpp daanaka fi mu ne moom xam naa xat ngeen xat goo xam ne kii uh, jataay bi mënut mënut yàgg waaye daa fekk na ne suñu njaboot gi nga xamante ne ñoo nekk fële ca bitim réew ca Espagne te nekkandoo fa ak sëñ Assane mais ñi ci jiital suñ ca tuddee sëñ Babacar Thioune nga xam ne mooy wëlëreem euh, daal ñoo àndoon ñëw tudd ca euh, suñu rakk Ali Thioune tudd ca suñu euh, ak mboolem ñi nga xamante ne bii nekk fii ci Sénégal te fii bu mën naa yaakaar naa bu ma ci jiitalee sëñ àll yi xam ngeen lépp moom <laughs> ndax fii moom yàgg nañ fee ànd ci ci liggéeyal sëñ bi ngeen ñu ci yaatal lool. ngeen ñu ci yaatal lool na xanaa ne xanaa suma ma juumul de la 2001 en direct bi ñu njëkk a def euh, la tubaa fii lañ ko doon defee ci néeg bi nit ñi ne mën naa ko njëkk a def ñu ñu ñu jàllale naa fi la Touba gi en direct sëñ Aliou ne man de léegi lu ma am de ma gënal ci àdduna ak wane jumaay sëñ Touba ji yàlla naa am tele ba mu amee télé bi amee jàpp ngeen ci bu baax ndax yaakaar naa sonnatuñu ci image ndax yéen dëgg-dëgg lu ñu soxla jot ko lamp faal te duñ am problème njaboot gi nag ñoom ñoo féetee foofee sëñ as mi xam na xamante naa ñoom bu baax ñu am yitte nag ci at mu jot ñu amoon yéene def lii euh, àndandoo ko ñoom ñëpp seen biir tam nag euh, lii maanaam la ca kees gale boo ko dee xool moo ne ci yeneen kees yi muy pain au lii ci saaku bi moo ne ci yeneen saako yi toll na ci ñeenti téeméeri mburu lii moom ay xeetu kii la ba ngoom ay keeg ak yooyu ak ndox mi ñoom tamit nag ñu am ne xeet nañ ko lool délégation bi nag biñ ko àndandool sëñ Alaaji Ndongo Ngom mii suñu mag ñoo fi àndoon daaw liggéey yi nga xam ne ñoom moom la ñuy taxawal fee ca Bambey moom mii moo ko moo koy leen koy ko jiite euh, sëñ Mandiaye Thioune mii suñu mag la moom mu professeur la mu ngi nekk Thiès waaw kii Jibril Sène suñu jarbaat la kii moom seen fas wi nga xamante ni moom la ñuy yore foofa ca Bambey ca liggéey suñu jarbaat la moom itam kon kii sama soxna la waaw soxna na Gueye moom mu ngi ci ci université Bambey bi boobu la nekk secrétaire waaw moom daal waaye daal li gën a am solo mooy daal yéen moom suñu sant ak yéen suñu gërëm ak yéen daa jiitu lii ndax lii bu doon te ne ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari at yi ba ñetti yi lañ koy def la jiitu la nga xam ne daanoon ko fi ànd ak sëñ àll yi du ko def yaakaar naa moom jiitu na ay at yu bari moom waa jiitu na ay at yu ba ci ca ca wanag ya cawa nag ya ba ca <laughs> ba ca ba lépp rek kon euh, yal na leen fi yàlla bàyyi yal nañ fi yàgg ñëw yàgg leen fee fekk ndax mu xaddimatul xidma yéen ngi def liggéey bu am solo bu doon toon ak yéen de ah jumaa ji dina naqaree lijjanti kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal nag ci turu njaboot gi yëpp day sunu rakk yooyu nekk foofa ca Espagne muy xaali ak Ali ak Mbay ak Penda na ngeen leen ñaanal bu baax ñu am jàmm yàlla indi leen ci jàmm ñun ñii fi nekk nag moom ñun moom xam nga sunu dàll fi ñu ko sol jëm moom ñun moom <laughs> rek lañ jëm moom si <laughs> bi kii taxawu leen ten taxawul sunu mag ji yàgg fi lool taxawaayam rafet na lool ca ca ca ndax ñoom seen seen seen seen mbooloo moom nga xam ne ñu ngi ko tuddee Hermanus Thioune ndax ba ñuy def seen yëf mënoon nañ ko yemale ci seen bopp foofa waaye ba ne hermanus Thioune rek képp ku ku bokkal bokk nga ci biir kon famille bi dugg na ci biir kon daal euh, ñu ngi sant te gërëm te accueil bi taxawu gi mënoon nañu ñëw rek yam ak ca bunt ba wax la ñuy wax jëlaat oto ba dem waaye lii ak yëg la ñu ngi koy sant nag di sant sañ asan mi ndax loolu wala gi dox digganteem ak mbay moo dox ba indi lii kon sañ asan jërëjëf yooyu tam yàlla na la yàlla bàyyi Euh, sëñ Jili euh, <laughs> sëñ Saliou moom daal xam naa sëñ baa ngi lay toog moom. <laughs> waaleykum salaam wa rahmatullah euh, jërëjëf sëñ Bédi ñu ngi lay siyaare di siyaare mboolem njaboot gi nga àndal yëpp te teewal fii maanaam jëwriñ yi xam ne doon taxawu liggéey bi ni nga waxee sëñ Babacar ak ñoom xaale ñoom ñëpp ñooñu nag dama mat ci ñoom seede. ndax yàlla daa dogal maa ñoom ñu bokk nekk ca ca ca réew ma euh, mu bokk ci ñi nga xam ne tamit ci membre fondateur daayira Muxaddamaatul Xidma bi ci la bokk ndax ñun groupe bi njëkk a am tudd ko Muxaddamaatul Xidma diaspora sañ bay moom ma nga ca naka jekk tam am xelam mi ngi koy dawale ci lu tax liggéey bii nga xam daayira bi mu ngi koy taxaw suñu borom gën cee def ak jàppandal ci ñoom ñu koy taxaw ba yàlla dogal na at mi nga xam ne moo njëkk ci ñu def liggéey bii buñ ko xoolee daaw indi woon nañ mille cent et quelque ci ay pain ak i mburu ren ñu indi lu gën a kawe loolu kon nag loolu moom euh, moom yéene jañ am ñun rafet nañ jot na yàlla dana leen ci defar am gàttandu ndax keroog bu njëkkee dégg say ablaat na di wax ne jumaa ji de ci màggalu euh, daaw gën euh, waajal nañ lu toll ci juróom-ñaari téeméer ni ba ci junni keroog mbay lim njëkk xalaat mooy sëñ Assane noonu kat kon jàpp naa ne war na noo liggéey liggéey bu tax ñu mën a ndekkil waa jumaa jëpp loolu bañ ca jógee am ci pas-pas rek la leen ko sëñ bi defal kon nag sëñ bay sëñ sëñ bay di eh, ñun daal liñ mën a seede mooy ni ko sëñ aafee bi soo di waxee fii daal bërëb la boo xam ne daal ko fi biir maa nga dàkk fi jam nga kon daal moom liñ mën a seede mooy seen jëf ji sëñ Tuubaa nangu na ko ndax fañ ko liggéey ak nañ ko yenu indi ko ñu leen ñu leen di gàttandoo bu ubbi jumaay sëñ Tuubaa ji ñu indi ko ba toog fii ci ron sorool bii fas yéene ko jébbal mbooloo mu takku mi nga xam ne gàttandu gani sëñ Tuubaa ñu fas yéene ci xewlu ñoo jëf sëñ Tuubaa gërëm na ko kon nag ñaan rek lañ ciy def suñu borom gën a yokk tawféex ñi ci doon jàpp itam nañu xam ne ñi leen ci doon soññ day fi ñu leen koy defal leer na ndax lii de ku ci kuñ ci laajoon ab dërëm nga joxe ko loolu ñu wax laaj li ñu def ko fu ñu xam waaye lañ ci doon dajale di ko indi moom agsi na ci jumaa ji kon na ne ci jéem ñépp gën a fedd seen laxasaay ba ba lañ ca yéene ñoom ak nañ ko tuddee famille boobu nga xam ñoo ànd ñoom ñëpp rek suñu borom defal leen tawféex ba kenn ku ne am doole kàttanu mën a def lii loolu daal moom leen koy ñaanal tam ànd ak ngërëmul sëñ Tuubaa waaw sañ Bay dëggante nañ ba amoon na pas-pas ak yéen a bëgg a ñëw waaye nekkoon ci ay ak semaine yu mu doon def ak yooyu waaye mu itam jëpp mooy si liggéeyal sëñ Tuubaa waaye yitteem jëpp mooy lu yëkkati yoon wi rek ak taxawu doomu aadama yi kon nag kàddu gi xam naa dañ koy jébbal sëñ sëñ sëñ Saliou gannaaw bi ma yëkkati kàddu yi itam maa koy yëkkati ci eh, rek turu sëñ Jili mi nga xam ne tey jii moo fi toog ci teewaayu suñu yaaf yi bu sa imam ak tu tu tu daayira bi yëpp kon sëñ Jili ñoo ngi lay siyaare te di la gën a seedalaat jëf ji waaw jëf ji daal mi ngi nii nii daal lañ waxtu wu ci ne li mooy seen yitte waaleykum salaam wa rahmatullah ok ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ci ziar boobu ak nuyu bi Sahibul Fadila Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom ko fi loolu te wéral ko ba ñaari ci jàmm te ànd ko ak mboolem taalibe yëpp ak Cheikhul Khadim bi nga xam ne mooy kilifa daara Moukhaddamatoul Khidma ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo koy jàppale ñu tuddee sëñ Abdou Lahad ak sëñ Abdou Lahad Moukhtar ak mboolem ñu koy jàppale bu ci turu si Abdou Khadir Bousso mi toog suñu wet nga xam ne moom lépp luy communication ci biir daayira Moukhaddamatoul Khidma moom moo ko jiite tey suñu kilifa nga xam ne xëy na bëgg euh, euh, li ñu soññ bëgg ñu nekk ci lu baax moo tax bu bu bu fi na suñu kàddu sax ko yëkkati waaye bëgg ñu baax la moo ñu ko yóbbee ak itam ndigal kon ngeen jàpp lépp lu wax rek euh, li Sëriñ Tuubaa di wax rek moo ñu li li li Sëriñ Tuubaa wax rek moo ñu ko yóbbee loolu rek moo tax ñuy wax di leen nuyu bu baax te di leen sant di leen jaajëfal bu baax a baax di ci turu sëñ di di nuyu bu baax sëñ Assane Diop mi nga xam ne mu ngeen ànd si Assane Diop xidma ñu ngi koy nuyu bu baax di siyaar sëñ Babacar ak sëñ Baydi Cuun ak mboolem yéen ñi nga xam ne yéen ànd rek ak mboolem ñi nga xam ne liggéey bi ñoo ko jëf sottal ko fexe ba ñëw ci barab bi comme ni ko suñu Assane waxee léegi barab bi daa doon barab boo xam ne lépp loo xam ne lu fi ñëwoon rek dugg fi rek xel mën na see dal bu baax a baax ndax lay firndeel kon ñu ngi leen di ñaan ngeen yàgg koo taxaw mboolem mi nga xam ne jëf nañ ci ku mën doon rek ak ku amoon si ñu ngi ñaan suñu borom dëgëral leen te taxawu leen te taxawu njaboot gi te lépp li ci yéene muy liggéey Cheikhul Khadim suñu borom def leen te ngeen koo def te ko gis xam ne yéene ak ak ak ak ak ak itam njëriñ lu rëy rëy loo xam ne eh, am nañ ko ci ndax ni ko suñu asan waxee léegi ren rek junni eh, junni nit ak juróomi téeméer ñu ngi ci liggéey daal Moukhaddamatoul Khidma ji ci biir jumaa ji ak penc bi ngir war ak ngir sàmm war may barab bi te ñooñu moom jàpp nañu ku ca ci xewlu waaw loolu rek incha allah rabbi dañu faa bokk ñu xewlu ci loolu rek rëy la ñu bu baax a baax di sant ci taw sëñ Afia Bousso bu baax te bu ñu jaajëfal di ñaan suñu borom taxaw leen dëgër leen taxaw njaboot gi ba li ngeen ci bëgg ak lu mën dem rek suñu borom defal leen ci tawfeex te ñu yàgg koo taxawee loolu ci daraja Cheikhul Khadim di sant si baax a baax ci taxawaay yi moom moom daanaka boo waxee rek doon ndax saa su nekk ko gis ci liggéeyal Cheikhul Khadim rek ci la nekk ba turu turu si bi sax léegi ñëpp xam nañ ko kon ñu ngi koy ñaan suñu doom gën a dañal gën koo taxaw ak mbooleem rek na la moo ci a jàppee rek ñu ngi ñaan suñu doom gën a taxaw ak gën a dañal day jégalu na ci kàddu yi xëy na si Abdou Xaalim te am mënuñ cee ñàkk ko danga ko waaye moom bu mu ak bi ci am asan waxee ak seen rajo yi doyoon na sëkk kon ñu ngi bu baax